kilifa yi génn nañ kilifa yi génn nañ al amin maa ngi lay nuyu di la siyaar macha si jàmm maa ngi sant bu baax gis nañ ñi nga ñëw juge sa kër daal di ñëw fi nga xam mooy ministère des sports ñëw nga ànd ak sa frère Baye Ndiaye daal di dugg si biir est-ce que mën nañu xam li waral teewaay bi waaw merci beaucoup maa ngi lay nuyu Modou Anta maa ngi nuyu gars yëpp bon dama fi ñëw rek en tant que acteur de la lutte mhm. mais waaw déglu leen ko mu wax ngir yàlla le meilleur soit mooy déglu ko wax. man dama fi ñëw rek en tant que acteur de la lutte. mais man je n'ai aucun candidat je suis pas électeur. et j'ai pas de choix sur aucun candidat. Mm-hmm. je suis venu pour. tey lamb dañu war a unifier c'est une famille. Mm-hmm. aujourd'hui on doit pas créer une division au sein de la lutte. Mm-hmm. man je vote pour les réformes de la lutte. li ci war soppi ñu soppi ko li ci baax ñu li nga xam ne acquis la ñu téye ko. li nga xam ne war nañ ko ci changer ñu changer ko ci. mais pour vous dire vraiment moi j'ai pas de candidat aw ma choix entre Bira Sène ou Malick Ngom ou quiconque. Mm. c'est pas une affaire de personne qui m'intéresse. man li ma gëm te gëm ni làmb dañ ko war a réformer. Mm. taxi yi ñu ci war a changer ñu changer ko. li ci doxul ñu soppi ko li ci dox nekk ak itam ñu conserver ko. Mm. man foofu laa nekk je ne suis pas sur aucun clan ni aucun aw ma ku may àndal moi je pour la lutte et pour le bon développement de la lutte. loolu moo sax Abdou Aziz maanaam euh, boo ñëwee euh, tey fii maanaam ñu ñu tànn ay nit ñu tànn Malick Ngom wala ñu tànn Bira ñaari tur yooyu maanaam ñaari tur ñu ngi koy dégg. mais tamit man am na beneen information bu amaat léegi. Mm-hmm. muy père Bekaay. Mm-hmm. mën na nekk surprise su jour bi maanaam. Mm-hmm. ñu jox ko CNC bi tey. loolu maa koy dégg loolu yow ndax am nga ci ko wala. waaw il paraît que Bécaye candidat la mais toute personne est libre d'être candidat mhm. Sénégal lañ nekk demul dëkk démocratie la ku ci ne am nga liberté ni mën naa jiite mais comme ni ma la ko wax moi ce qui me concentre en tant que Aziz j'ai pas de aw ma clan aw ma parti pris je suis pour le développement de la lutte pas pour aucune personne. mais ni bi defee waaw je vois waaw gëm naa ni gëm naa ni tey lu mel ni tam aussi mën na créé confusion ah. mën na créé division. lamb c'est une famille. mënoon nañ dem ci consensus. xool koo xam ni vraiment c'est pour l'intérêt de la lutte. aujourd'hui quoi qu'on puisse dire. Bira def na un excellent travail avec son groupe. liggéey nag du mat am na lu ci baax am na lu luñ ci war a jubanti. loolu lépp mën nañ ko waxtaanee. Malick ngoom aussi comme ni ko gars yi waxee c'est un bon profil le reste nag mooy ñi war a déterminer les choix vont le fair mais c'est pour l'intérêt de la lutte li ma gëm mooy lamb c'est une famille on ne doit pas créer une division pour la lutte mm. ñun ñëpp nañu unifié wu booloo nekk benn lool laa gëm ni mooy njëriñu lamb moom mais yow loolu nan nga ko gisee waaw man moom yàgg naa ko moi je vote pour pour une fédération parce que mm. làmb fi mu toll tey dañu war a fédérer toutes les forces vives yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal toutes les quatorze régions du Sénégal war nañ ci am seen wàll mais li gën a am solo rek mooy li may wax aujourd'hui le véritable combat de la lutte mooy le réformes li nga xam ne dañ ko war a soppi fi àdduna toll tey fi jamono tollu tey texte yi nekk ci làmb méngoog moom loolu nag ki koy prôné rek gëm naa ni mooy nekk le mooy le meilleur profil que muy Bira Malick Ngom Bécaye kum ci mën a doon l'essentiel que na nekk pour l'intérêt de la lutte te mu bare bañ a créer benn division bañ a créer benn jiixi jaaxa parce que lamb ñi ci nekk ñëpp famille la je pense que aujourd'hui peut-être le ministre va faire son bon choix parce que lu vote yi mën a demit bu leen fàtte ni prérogative bi ministre bi moo ko am bu ñëpp àndoon ak kenn tam moom su ko neexee ki ko doy rek lay teg

mën na nekk réforme intégrale mën na nekk réforme partielle mën na nekk loo xam ne ni dañ koy joyantiwaat yow ñàkkul am nga ci xalaat keneen am ci xalaat ñu toog tënkandoo xalaat yi parce que benn nit rek doyul man li ma gëm mooy tey làmb dafa jaadu ñu def ci ay réforme ci taxi yi am na ci loo xam ne promoteurs yi d'accord wuñ ci am na loo xam ne mbër yi d'accorduñ ci même yéen journalistes yi am na yoo xam ne d'accordu leen ci nañ ko waxtaanee rek trouver solution pour le bon déroulement de la lutte loolu rek laa gis gars yi euh, un message de paix et d'apaisement ñu bañ a créer conflit et clan dans la lutte lamb soxlawul clan soxlawul ay groupe soxlawul ay lobby comme ni ko gars yi di waxee sport dafa soxla booloo dajaloo nekk benn pour l'intérêt de la lutte lamb c'est une famille on ne doit pas créer une division au sein de cette famille et merci beaucoup je vous remercie. mais Aziz non Aziz daa am lu ñu la bëgg a laaj bala ngaa dem parce que li tax mooy man li ma la bëgg a laaj mooy yaakaar naa ne eh. sa njaboot parce que Balla Gaye 2 sa njaboot la Lac de Guiers 2 sa njaboot la. Hmm. ñu déggoon ay tiraay ma ay jàppal bàyyi ñu gis biig ay vidéo yoo xam ne ñu bëri seen xol daf ci sedd ah. ñu gis leen ñu nekk ensemble di babi di kaf di fo di ree mel nii olof li muy wax rek ginnaaw ay jàmm bu fekkoon sax ay dafa am. waaye tey gis-gis bi ci Aziz am ak ban taxawaay. waaw xam nga xam nga loolu c'est important comme on le dit souvent on ne fait pas une diplomatie de la rue. Hmm. gis nga ay nit dinañ jote du ci ay micro lañ leen di jubalee wala leneen. ñi ci war a dox dox nañ ci. te ku gis Lac de Guiers démb ak Balla Gaye nga xam ni est-ce que mës nañu am problème. déedéet moo jaaxal ñëpp. kon donc image rek sa parle ay nit su ñu amoon problème dinañu am kersa. mais mel nañu dara te dara musul xew comme je l'ai toujours dit man yëguma fu dara xewee. xëy na ñi ciy wax wala ñiy créer tiraillement ñoo ko bëgg. mais je vous dis que ni rek comme ni ngeen ko xamee sport dafa war a boole dafa war a unir. Lac de Guiers Sa Thiès Balla Gaye c'est une famille et tout le monde les autres écuries sax problème yi fa am yëpp mën nañ ko régler en douce. Mm-hmm. loo xam ne jarul muy jub ci kaw xam ne sport jàmm la. waaw loolu c'est un autre débat après nañ ci waxtaan. <laughs> jërëjëf. ñu ngi sant yàlla bu baax. moo li. waaw li coow non ko dundee mooy. il faut ñu xam ne dëkk bi du affaire Pastef mm. man du jànje ko mm. aw ma carte Pastef aw ma carte APR aw ma carte PDS mm. aw ma carte benn parti. je suis citoyen yaa ngi dégg fii ñii di wax naan nit ñi dañoo xeex Ousmane Sonko man xeexuma usmaan Sonko xeexuma Diomaye xeexuma kenn bañ jàppee Ousmane Sonko dama taxaw ne war ñu ko jàpp keroog ba ñu jàppee Diomaye dem naa ba foofu di parce que Diomaye xale la boo xam ne xam naa ko dafa may nuyu yaa ngi dégg musuma wax ne képp koo xam ne nekkoo si yoon naa ne nekkoo si yoon Macky moom moomul woon nit ñi tey jomaa jomaay moomul nit ñi fii sénégalais yi ñoo ko fal mhm. nañ ko wéyee la noonu mhm. waaye amuñu droit jël benn nit ne Pastef la bokk nañ ko jox làmb ji loolu mhm. teguñu ko fenn Bira Sène liggéey na fi parce que dafa yaatu ko yéen a ngi nii ku ko woo interview boo ko wooyee mu jot la te ñi fi nekkoon pour jot leen problème la woon dëkk nañ xam ne ñëpp ko bokk ku ñu war a fii nañ ko fi teg ku ñu warul teg ñu xam ne waruñu ko fi mais man ñëwuma fi pour ay naan nañ voté diw wala nañ voté diw Bira Sène liggéey na xam nañ ne liggéey na dañ koy reconnaître voilà man loolu moom fii hmm. mais nekkuma fi pour ay ñii dañoon fala euh, Ousmane ñii di wax nii suba ñii di wax nii léegi. Hmm. di tagg Ousmane Sonko ak hmm. Diomaye. suba ñoo koy saaga fii. am na ñoo kenn seen bopp rek lañ fi nekka wasalaam. nga jëlee si biir. mais li jëlee si biir mooy dañoo wax ne ñëw leen toog ku nekk wax sa xalaat wax naa sama xalaat déposé naa ne man Bira Sène laa laa àndal jeex na. pourquoi le choix de Bira parce que parce que Bira moo yaatu moo ñu yëg. waaw biraa moo ñu yëg. ñi fi nekkoon daaw ñu ñu faale. Bira tey ubbeeku na mooy yendu CNG di fa fanaan di fa def lépp. pour rek défendre intérêt làmb moo tax ma ànd ak moom. te boo xëyee ñu la Malick léegi ministre bi tànn loolu. ma xam ne Pastef lañ tànn. nga xam ne kon li ñuy doon wax loolu moo. waaw Pastef lañ bëgg mu jiite léegi nii tey ku yóbbu dem jëli carte Pastef parce que boo amul carte Pastef doo liggéey si dëkk bi. <laughs> nañ wax di dëgg barki démb grâce yi dàq na koo xam ne nii. da koo tànnoon benn militant Pastef di ko attaqué mu dàq kooku jël militante Pastef. te loolu yanul naa la réew mi ñëpp ko bokk Sonko mooy premier ministre gouvernement di Sénégal Diomaye c'est le président de la République Sénégal mhm. du président Pastef parce que moom nee na démissionné naa Pastef leer na Sonko c'est le président Pastef c'est le chef de gouvernement mhm. yooyu la ñu war a bàyyi Sonko da doon bañ démb li mu doon bañ démb bu ñu ko nangu tey c'est ça merci